acca salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax baax di leen jaajëfalaat ndax seen mbégte di suñu bànneex comme ni koy faral di defee yéen ndax wax nañ leen ne leen li ngeen bëgg rek loolu la ñuy def saa su nekk moo waral tey suñu nga xamante ne moom moo di yaraax tableau fekk fi nag ñi nga xamante ne bii mën nañ la fois passée bus bi nga xamante ne moom moo tàkkoon ñoom ñoo ci mucc tey ñu seet si leen fas yéene waxtaan ak moom ñu ñëwaatal ñu ci li nga xamante ne bii moom moo di fee bi avant tout suñu yaay booy dañ koy daal di bàyyi mu daal di ñu dugg moom ci waxtaan yaay booy ñu ngi leen nuyu baax baax waa maa ngi leen di fay bu baax sama doom maa ngi leen di fay bu baax. bu baax a baax. waaw di sant yàlla bu baax di leen ziar bu baax waaw. yaay booy tey bu ñu waxoon pour nga ñëwaatal ñu ci li nga xam ne nii moom moo di fee bi lan nga ñuy wax avant tout fan nga jógee woon. waaw ma sant yàlla julli si yonent bi di wax bisimilah maani rahim di santaat yàlla bu baax. di wax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla di wax ni yàlla rek man eh, dama jóge woon côté daaru ma demoon waaw sama kër bu nekk foofu laa demoon xëy na soxla laa dox woon foofu maag sama set bi ñu ñuy wax sum kari ñoo àndoon bi ñu ñëwee ba fii biis bi di génnee foofu lañ koy jële bi mu jógee koonoon dem daaru foofu lañ koy jëlee pour ñibbisi fii boobu moom kiiw ma ay bi ma parce que bi ma fay déparé moom maa ngi daw sax euh, di dem pour yàkkamtee ñibbi si xool ma sa heure waay ndax jëluma woon sama portable tekkam dum ay ab à peu daal bi ñuy départ ñoon xam naa ne ay midi yooyu ay midi une heure yooyu la ñu war a départ waaw jóge côté yooyu di ñëw bi ñu bis bi moom bi ñuy jógee daaru ay nit yi yema ci nekk ñu ngi toog par benn place toog par per benn déedéet foofu pa bii ba place bi côté boobu feesagul woon mais xam nga tracé bi dafa gudd parce que mu ngi jógee daaru euh, jóge Kounoune jaar daaru génne Kër Massar jëm Seera xam nga euh, kii bi dafay gudd ligne bi dafa gudd mais bi ñuy dox di ñëw moom mi ngi nit ñaa mi ngi arrêté nit ñi di yéeg ñuy nekk mais boobu mi ngi laaj sax moroom wax dëgg yàlla chauffeur yi di laaj yoon wi ndax leer naa ko yooyu amul benn jafe-jafe amul problème moroom mi di ko wax naan ko mën ngaa ñëw dara nekku fi dëgg yàlla moom chauffeur bi wax dëgg yàlla mu ngi coordonné di laaj ndax euh, def ko ci ñaawte fii kenn nekku ceeg yooyu moroom mi ni ko waaxul dem ñëw daal ñu demee ba mu gis benn kiim re moroomu kaaram day yoon bi nu mu demee mu ni ko demal daal waññeeku yoon bi moom del teel a wàcc rek ndax gars yi kenn xamul seen i bu nu xëyulee rek mën nañoo gont déedéet man ñi mu doon wax xam parce que moroomi biisam yi lay bu tasee comme par exemple muy tasee biis waaw wala mu ñëw si garage bi fekk biis yi taxaw mun leen yoon wi nu mu def mm-hmm. ñooñu moroomu biisam yooyu la loon waxanteel moom laa gis ñuy waxanteel wala ñu muy jokkal ñu muy jokkool nag moom gisuma leen mais léeg-léeg mu dem ba taseeg biis daal di ne la ndax yoon wi leer na ñu ne waaw mu daal di départ waaw biñ ñëwee tamit ci yoon gis nañ fi sécurité gis nañ fi gendarme yi gis fi policier yi si yoon wi yoon wi daal amuñu problème dem bi amuñu problème it ñëw bi ba ñuy ñëw nag Euh, fi problème bi nekkee moo fii si euh, euh, pomme daaru salaam bi waaw yaraax falañ amee problème bi. waaw mooy comme ni ma la waxee nag ni la daaru laa jóge ñu continuer di ñëw amuñu benn jafe-jafe ñu ngi romb gendarme yi sécurité bi ñuy ñuy lii ñuy dem. am ñu benn jafe-jafe ba ñu ñëw Daaru bi ñu continuer ba ñëw Kër Masaar nit ñi di yéeg aar bi tataay bi si nit ñi di yéeg ba bi ñu ñëwee nag ba fii nii Daaru Salaam si la am benn client bu wàcc bi mu wàccee nag am na benn waay bu jógee nii jógee kanaal bi bi muy ñëw nag maa ngi koy seen waa benn waay laa gis waa ji mu ngi sol pantalon bu ñuul sol body bu ñuul waaw body bu ñuul la sol laxasoo kol ki benn kol bu ñuul ci baat bi sol benn kap bu ñuul euh, kol bi la def nii ci loos bi sol veer yu ñuul sol kap kap bi mu ngi tëj rasta yi waa ji euh, moom du mag noonu sax ni mu koy séenee njool la def yem xees waaw njool mm-hmm. xees la def léegi nag bi ñu ñëwee ba noonu mu jéggi bi mu jéggee tamit mënoo xam ndax euh, kii la agresseur la mënoo xam ni kii day ñëw pour agresser mm-hmm. ndax bi mu génnee canal bi noonu dafa ni nii bi mu jéggee nii mm-hmm. bis bi nekkee nii dafay traversé nii nii nii waaw waaw kay comme client bu yéeg mu def nii bis bi taxaw mais bi mu taxee dafa wër rek ne lii laa bëggoon tey rek ma nangam taan seen ndey hmm? hmm. doomaraam yi ñuy dafa kaas suñuy naqar yéen ngeen di naan di ngeen di liggéey day rek lay taal seen ndey yéen ñëpp ngeen daal di jël xeer bi rek dóor ci blé bi côté bi mu dóoree nag man fi laa toogoon ndax biis yooyu nga xam ni fii ñett la hmm. fii ñaar la sës ci chauffeur bi bi mu dóoree xeer bi rek dafa ni taal taalal ma ndeyam ma taal seen ndey te ni ku mu àndal laa gis ma ñaar xam naa ne nag ñoom xëy na am na ñu làqatu ndax dégg naa ñu naan ñeneen mais ki génnee cocktail bi ak kii taal su muy génne ak kii taal da sànni si libre affaire bi nu bëm xeer la jëkk a dóor mu ni bëm bi mu tàkkee tam xeer bi si vitre bi la ko jëkk a dóor waaye mu toj ñu dugg rëj-rëj di daal ngay dégg xeer bi dal si bi mu taal kook manatel bi sànni si biir ñi daan ni waaw ubbi li ma daan ni waaw man bi ma nee waaw sax dama defe ne woon xeer lañu xale yi sànni xale yee sànni xeer mhm. ma gëstu gus ko xool xel ko nii si vitre mu ni tey rek laay taal seen ndey yéen ñëpp ngeen tàkk ba jeex mhm. ñu daal di ni ubbi leen bunt yi mu ni kenn du ubbi bunte yi nii ngeen di tàkkee ndeyam ba jeex daal di taxaw nag bi mu taalee daw. mais bi taal sànni ko si. taxaw. déedéet. boobu ànd baa ngi ñun ñëpp a ngi si biir tëju. Mhm. ñëpp doon dem bunt yi. moom moo ñu taxawal. léegi bi ubbiwul boobu ñun dañ defoon moom sax kii la nu mu tuddee moom waa ji ñu arrêté dañ defoon client la. moo tax chauffeur bi bi mu taxee moom dafa arrêté di tourner rek daan tey laa nangam taan seen ndey rek dóor cocktail Molotov bi si biir tàkk tàllal ndeyam ñu tàkk ba jeex bi mu taalee it demul dafa taxaw ba takk takk bi takk bu baax ñu nu bu leen bunt yi mu ni nii ngeen di takk ndeyam ba jeex moom boobu ngi ci biir wala suñu biis ubbeekul ba tey li ma gis laay wax te yàlla rek tax mhm. mag laa du ma fen musuma fen bi may xale kon du ma toog ba léegi nii di fen te suma ma dee ak sama bàmmeel yàlla rek laay wax ak yeneen tamba bi muy tàkk daf ñoo sànni si biir ñuy tàkk chauffeur bi xam naa dafa tiit daal tëb tëb parenteer bi ñu ndax boobu ñun xamuñu sax fu ñu jaar ñoom tëb na receveur bi tëb na xale góor yi commencé tëb ñoom ñëpp ñu tëb amoon na ay góor mu ñu tëb na bi mu sànnee cocktail man si xal tànk si kanam nii la ko taale mu bërëmu taal mbubu paa boobu ngay gis muy tàkk mu sakk mu sol trois morceaux moom la sol muy tàkk nag ñoo jàkkaarloo nii mbubu yi mi ñoo jàkkaarloo nii maa ngi toog trois sama sët bi mu toog nii bi mu tàkk góor yëpp tàkk moom na ndax Mor solo Sall bi ñu kenn xale nañ bi ñoom du ñëw ndax dañuy daw ndax dangay ngay sa bopp mais bi ñu demee ñoom ba dem ñi nekkoon foofu yëpp daw nañ ñëw bi ñu dawee ñëw nag fekk ñu ñu ni si bis man ak keneen ku jigéen ak paa bi lakk noonu tëdd ak sama sët bii laa gis boobu mënoo gisaat keneen bis baa ngi takk takk ba ba commencé jël kii bi mu saxaaree nag ñuy xëcc mag ndaw si ku jigéen ki ma jiit la woon ñuy buux ma naan ko puusal puusal ñu puus la ni nii tëgg ni la xale yi ñi si ginnaaw ni muy kon yéen yi meer yéen a ngi si biir ñu commencé xëcc nag ñoom ñuy ñuy puus ñuy xëcc xëcc nañ fa lu yàgg boo xamante ni si bunt bi pour ñu ubbeeku moom ko jëlee dafa gars yi dañoo jote dugg ci biir nangu ay xaalis nekkoon ak ay téléphone yow da ah man de damay wax rek te yàlla tax bu dee biisu 65 bi mu jëlee euh, ku jaxaay euh, nu mu daaru ñëw fii ba ni may ñëwee fii ba bi ñu duggee nii bi ñu ñu ñu taal fii ñu ñu taale biisu ubbeekuwul bi mu ñu sànnee la la kii nu mu cocktail Manotol bi ba taxaw ba mu jëf-jëfi dafa daw dañoo daw bi ñu dawee la nit ñi di doog a ñëw sax man ñoo àtte bi mu ne damay taal seen ndey ba ngeen takk ba jeex ñu ne ubbi ubbi leen bunt yi ñu ken kenn du bi moom daa tiit ba tëb xaw ma tiit la daa ma gës sa gisuma ko te xam nga ni bouton yi bunt yi bouton moo koy ubbi suñ ko ubbiwul ak bouton duñu génn ñun ñoo nekk ñun di góor ñi mën a tëb tëb nañu am nañu tëb gaañu am nañu daa naa du ñàkk ñoo xam ne daw nañu seeni gaañu ñun daal jigéen ñi ñàkk pexe mënuñoo tëb nekk mag ñoo fa nekk ak sama sët bi du yuuxu sama tànk yi maam damay génn ubbil bunt bi maam damay génn ubbil bunt bi ñuy puus di puus xale góor yi duñu ubbilee def nañ fa boo xamante ni yàlla rek mooy buur ndax man dem naa ba ni yàlla daal ñoo ngi nii say jaam lañ loo loo sob si ñun rek jeex ndax boobu jaam xalaat nañ ni man dee rek laa gis ndax bis bi takk na boobu wër ñu bi mu takkee nag ba mu fàtt nag fa dama asthmatique bi mu naan ko may ma may ma ma ma nooyi may ma ma nooyi di dugal sama bakkan sama bopp ci diggante bunt yi si la ma safara si lakk nii ndax boobu bis baa ngi commencé si kaw wër na yëpp takk bi wër nañ daal kéemaan la ñun bunt bi ñu taxaw daal moo des ci tàkk bi fi tàkkagul ak kër gi fi ñu tëdd moom yére mi tàkk na ñun fi ñu taxaw di puus maak ndaw soosu ñuy puus di puus ba ndaw si ma naan ko puusal ñuy puus ba ndaw si moo jéem a pëtaxlu si diggante bi ñi ñu xëccal buus bi ubbeeku mu tëb ma tëb ne alhamdulilah rabbaal ma xëcc sama sët bi bi ma xëccee sama sët bi moom tamit góor gi tëddoon ndeysaan <coughs> la lakk noonu lakk yu metti sax la lakk si la tëbee moom tamit sukko foofu mu taxaw foofu mu ne sukk fa fa la sukk fa la sukk ndax boobu mënatul dara yaram bi yëpp ñor na loxo yi nopp yi donc yëpp booba ñoo ngi ñu génne ba teg man it booba fatt naa fatt na sonn naa mënatuma dara après may bi may bi may làmb nag sa mën a fa bi ventoline bi muy jël ventoline bi mooy sama pompe mooy pompe secours waaw mooy bi muy jël ni mooy sama secours moo ma dimbali sax ginnaaw yàlla yàlla wee moom laa jël di pompe di pompe di pompe ba ñu ne ma wàccal si suuf ma ne dama fàtt ñu ne ma maire wàccal si suuf nga toog pompier léegi mu ñëw pompier léegi mu ñëw si laay génnee nag sama pompe bi xaalis bi mu dugaloon foofu nag pour yóbbu ko si foofu kankeri ba fekkuma ko fa ndeket fi ma koy dugal génne naa si lii bi xam nga rek pompe bi ndeket génnaale na waa xaal bi génnaale na mu wadd yëguma sax xaal bi cent mille rek la woon bi ma taxalaat woon doon ko yóbbu ci concaire bi pour am lu ma doon def. mais ci biir ci biir bus bi nit naan maam mhm. bi demee sama bi ma am naa instant yoo xam ne moom bi ma yuuxoo yuuxu yuuxu ba déggatuma ko ba maam ubbi bunt bi. dama ko ni ma mm, wallaahi bu mu amoon fu ma la jàllale sax nga jàll daa mu gënal man ma tàkk sax ma dee man moo gën ñu ñaar ñëpp ñu dee boo amoon fu ma la jël ba nga dem nga nga dem man ma dee sax moo gën ñu ñaar ñëpp ñu dee deewandoo mais instant boobu yuuxu na ba mu ni tekk man dama ne woon sax dee na bi mu ne tekk dama ni dee na mu daal di ubbi nag mu tànk dàll bi mu soloon mu ngi jàpp si tànk mu ne ma maam sama dàll bi ni ma ni wiccaxal wiccaxal sa sa yëree tàkk moo moo moo moo takk moo lakk moo dakk tànk bi moo ko lakk mm-hmm. dañuy ñëwaat rek tuuti ci li nga xamante ne bi moom moo di fee bi ginnaaw ba ñu waxee ne sax dafa am ñaar ñoo xam ne ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan yow benn rek nga gis wala ñaar man moom bi ma bi ma génnee ci fi ñu toog noonu di xaar pompier bi fekk boobu man fatt naa mënumaa jóg oto pompier bi mu ngi ñëw di fay si oto biy tàkk si la ñu ñooñu doon dimbali si pam daan ni yaay booy mu naa ah, mu ne ma ñun liñ leen di dimbali yëpp yaay booy am na ñaar ñu tàkk fee ba jeex dama yuuxu naan ni laa ilaha illallah auzu billahi mina seytaan rajim ñoom xale yi ñu doon dimbali bu ñu génn ñu teg ñu noonu mu ne ñu yaay booy ndekete ñun biñ leen di dimbali yëpp biis bee taxaw di tàkk am na ñu fa nekk am na ñu fa nekk tàkk ba jeex dama yuuxu dama ni laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ne ñun de xamuñu woon loolu ma nekk loolu kay ñun ñii sax xamuñu lee xamuñu woon nga ndax biis bi dafa tàkk bu lëndëm xàmmewuñu ndax bu leen gisoon sax bi ñuy génn di daw ñun mën leen ndax xale lañu nee nañ saxaar bi mën na leen jàpp ndax dégg naa ko fi ñu léegi mu ni Euh, kër kooku lañ jugoon seen nijaay bi nee na leen bi mu leen yebee si biis bi si ginnaaw kenn nekk fi mu ni leen ñëw leen toog nii comme Colobane ngeen jëm mhm. léegi laa ko dégg fee information ma ne ko kon man saxaar si mën na leen di jàpp ñu xam si oto bi tëdd foofu tàkk-tàkk bi fekk leen fi mhm. muy li metti mhm. ñu dund ko foofu noonu si lii bi si laa déggee ñoom ñu wax loolu mais man boobu dama fat jóguma yaay booy na lool ndax ku ne xam ne ne eh, lakk-lakk fu mu am ak eh, feebar fu mu dem am dépense dafay bëri est-ce que jël nañ leen en charge. daal jël en charge bi dégg naa ko si kii bi rek tale bi ñu wax ko bi ñu demee nag it sam eh, pompier moo ñu jël si jël ñu ñu nekk ñu baax. leen nañ ñu woote ñu yóbbu ñu cinéma kii hôpital Thiaré. Mm-hmm. bi ñu demee tamit ñooñu ñu baax lañu accueillir nañu. song nañ bi ñëwee ñëpp dañu daal di bàyyi lañ doon def ku nekk song ma naan ndax man bi may dem dama am crise maa ngi sonn fat man damay dama ne leen dimbal leen man nooyi mënuma ma daal di jël yóbbu ma nekk song ma daal di lakk dëgg yàlla di bi ñëw docteur bi daal di ñëw dégg naa sama goro bii nii mu ñëwee danañ dañ jënd ticket nag dagg nañ ticket moom ñoo dagg ticket mu ne leen garab bi fi am jënd leen ko mhm. jox leen ko lu fi amul ngeen bindal leen ordonnance mais mhm. man ñun ñoo dagg suñu ticket dagg nañ ticket mhm. bindal nañ sama sët bi ordonnance foofu ñun de bindal nañ ay ordonnance dagg na dégg naa ticket dix mille dégg naa ñun dagg na ñaari yoon cinq mille loolu laa dégg daggal sama sët bi ñaari yoon cinq mille. léegi à peu près yi sa sa sët bi ak yow yëpp ñaata la. waaw moom moom kiiwu ndax ordonnance moo ko jël moo ko yore woon. da doon jënd rek di ma jox këy jaa ngi si moom am na sax yoo xam ne jënd guñu ko mu ngi ñu kii da ko doon moom lay wuti ci noonu. amul benn autorité bu fi ñëw wala ku leen woo. déedéet man de ko. Hmm. mais moom moomu daal dégg naa mu ni euh, xaw ma lan mu as yi hmm. mooy papa bi. Hmm. na ko démb ni que waxtaan xaw ma ak xaw ma. après dinañ fi ñëw waaye man boobu ñu wax ñu ma daal. moom buñ fi ñëw moom ñu ñoo faj seen bopp ba hôpital bi nekk fii. démb dama sonnaatoon di fatt ñu ñu yóbbuwaatee hôpital bi tamit ñoo ñu baax lañu recevoir nañ ñu toppatoo ñu bindal ñu kii laaju ñuy tikke mais ordonnance yi tamit ñoo ko jëndal suñu bopp kon seen kii moom ak cher bu ci macha allah macha allah yaay booy dëkk bi yëngu na euh, ku ne ku ñu wut foo jaar hmm. nga xam te ne day tey boo doon jàll message ban message ngay jàll fii Sénégal xanaa ñu ñu gën ñoo taxaw rek mm-hmm. man de loolu laay wax mm-hmm. gën ñoo taxaw gën a yokk sécurité bi te xam ni daal man li ma xalaat ne sécurité bi bëri na waaye des na ndax def ko ci ñaawteef ndax dama ni leen kii nga xam ne moo taal bis bi moom moom criminel la moom la laa wax mm-hmm. parce que mënoo taal ay nit ba ba pare ñu tëju si biir xeer dal nga dóor leen xeer taal leen ba pare ñu yuux neen taal seen lay ba mu jeex yaa ngi may dégg si diggu bëccëg te ñu ko def moom ñu ngi sol yu ñuul moom la ñu def kon ñaan nañu yàlla di ñaan daal gouvernement bi képp ku ñu mën a dimbal ci sécurité bi mm-hmm. ba nit ñi mën a dox seen soxla dem ñëw mm-hmm. rek lañuy ñuy wax waaw di ñaax xale yi nit ñu am jom te xam ni def lu ñaaw baaxul mm-hmm. acte bi moom rey nit rek la ndax ki taal ubbiwul dugguloo yow bu la jël taxoon ne jóg doo def noonu rey nit moo la tax a jóg waaw xanaa di leen sant rek waaw di leen sant di leen gërëm waaw di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi nga xam ne moom génne nañu si biis boobu ba ñu mucc lii ndax li sant yàlla la mm-hmm. macha allah waaw sant yàlla ñu lay jaajëfal bu baax mm-hmm. jërëjëf